ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dugal nañu ko ngir mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew wala bitim réew. asalaamaaleykum yéen mboolem jullit bi yéen mboolem taalibe bi maa leen di nuyu yéen taal bi xam yéen dëkk ci siyaare ne teew siyaare maa ci ndokk ci siyaare bi xam ne siyaare lu am solo la da ngeen def nii takkoon am na am na maanaam lool fa yàlla ak fa rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak sid alaaji ndaw radiyallahu anhu siyaare lu baax la siyaare moom boo ko dinee ci boo di boo ko dinee ci diggante sëriñ taal bi bu siyaare jógee bu siyaare jógee sëriñ dootu fa ne taal bi dootu fa ne ba dañoo ko taal fañ bi doo doo bu ko siyaar nag mooy mooy dund sa lañ maanaam taalibe bu siyaarut a taalibe fay des maanaam doo taalibe daal balaa doo taalibe fay siyaare waaye doo daan taalibe siyaaroo taxul da nga dem mooy dundal seen taalibe siyaare moo ko dundal bu siyaare lu baax la foog leen siyaare am na tiyaaba lool siyaare siyaare la yàlla wax ne ngeen siyaare te maa tax yàlla man képp xam ne siyaare ngeen Yalaman mu ne ñooñu sopp sopp naa ñooñu yàlla mu ne bëgg naa ñooñu ñaar ñi xam ne siyaarante te siyaar man yàlla maa ko waral yàlla man sopp naa ñooñu de ah yàlla na ku mu sopp nag aji na nga mën a dem rek yàlla kay ku mu sopp moom sa mbir moom pare pare nga yàlla ku mu sopp dara doo du jeex sa aji nga a dem te yàlla mu ñaar bëgg ñu ñu bi man ma waral sopp bon fa la sopp daf ko am na tiyaab ngeen góorgóorlu si baax a baax a baax ak yokkute lay doon ah bu ko defee Cheikh dafay dool taale bi te sëñ mu ne taale bu doolee ko sëñ fa mun taal bu yokko boog taal su yokkoo sëñ fa doolee ko mun sëñ mun sëñ mun bu taal bu yokkoo sëñ fa mën a mën taal a a sëriñ mag bi mooy suñu baay. Mhm. mu ne mu ne mu ne taal sëriñ bi mhm. daay bëgg taal bi yokku. Mhm. taal bi yokku jëm ci kanam. yëkkatiku maanaam. yëkkatiku loxo yokku. daay bëgg taal bi yëkkati yokku. man sëriñ loolu la bëgg ci taal bi. sëriñ taal bi na yokku na yokku. na yëkkatiku. maanaam na yokku na yëkkatiku daal maanaam. bu mu dellu ngonaam daal. mu ne sëriñ loolu la bëgg ci taal bi. man ki xam ne ki xam ne bu yokkoo. balaa dolli. nit xam ki xam ne bu yokkoo fa laa dolli man fa ngaa bëgg mu yokku de waaw mën a mën a sëriñ bi mën a taal bi nga xam ne bu yokkoo fa laa dolli yow sëriñ bi fa ngaa bëgg sëriñ bi fa ngaa bëgg taal bi yokku mhm. maanaam sëriñ bi daal bëgg na taal bi dolli ko mhm. sëriñ bi daan taal bi yokku lool mhm. loolu la bëgg siyaare nag ci yokku lu ci la bokk siyaare daal topp xam ne am lool ndax yónni yónni si ma ñaar ñaar bu dajee joxante loxo maanaam ke bee ko fële ba ngeen dajee loxo wala ngeen tàqale seen loxo yàlla jëgg leen Yang ngi beeg fan kii dëkk bi ngeen day ci biir place te yàlla daal rek tax mu ngeen ngeen day mun su ngeen joxante loxo nii ba ngeen tàggee suñu loxo yàlla baaleen waaw maa ngeen siyaarante yàlla yàlla tax ngeen siyaarante yaa ngi dikk sa mbokk bi da ko siyaare sa mbokk jul bi kële ñëw ngeen siyaarante mu ne bu ngeen dee joxante loxo nii la ba ngeen tàggee suñu loxo yàlla jégal xam nga bon siyaare baax hmm. bon na yal na yàlla jégal yal na yàlla yal na jégal bi yàlla jëm kanam ñi ko teewee yàlla fas yéene yàlla yàlla ubbi leen yàlla yokk leen baax a bah, a baax a baax siaran na ngeen jëf jazaakum Allaahu xayran allahumma salli ala sayyidina Muhammad ngir ngeen di jot suñu vidéo ci biir mi wala bitim da ngeen di abonné ci TV ngir mën jot mbooleem vidéo boo xam ne nañu ko ngir mën xam mbooleem loo xam dina xew ci biir mi wala bitim